mu ne ko ah, foofu jaru ko de ba moo tax israiliyaat ak islaamiyaat ñoo am moom kay nag nangul wala nga bañ nangu waaye mi ngi fi ngi fi ngi fi boo dee jël wér li ci tariqa bu mu ci doon dañ la naan defal li defal la jàngal li jàngal la yooyu ay islamiyaat la waaye du ay israiliyaat boo ko sànnee yépp nag ba faf ne tariqa amul sax yaa ngaa tooñ waaw yaa ngaa tooñ maa ngi ko waxtaan ak góor gële euh, euh, al imam euh, Moussa Sadd Moussa Sadd ku baax wallaay ci gàmmu jaawan ku baax la wallaay boo fa ñëwoon ñëw bu rëy wallaay ma dem seeti ko maa ngi def ci moom ay bëyit ku yéeme la ku ku jàmbaare la camp bi xale yi nekk ñu di leen entraîner euh, mu yóbbu fa ba ñu demee këram la ñu di ci waxtaan ci wàllu njariñu gànnaay wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribatil xayl turhibuuna bihi aduwallah waxul turhibuuna bihi aadaakum ay njuumte def ciy nekk ndax lu yàlla waxoon ni waxoon jullit yi ne na ko waajee pour yéefar léegi jullit a nga koy waaje pour jullit ni moom seetal loolu lu yàlla waxoon jullit yi ni na ngeen ko waaje ndax yéeféer léegi jullit baa nga koy waaje ndax jullit ni moom yàqu-yàqu dugg na ñu di ci waxtaan nag ayaa ala baytin xallada allahu majdahu wa mattaahu bil ilmi min baabihi l ahqar mu mel ni lu mat a bàyyi xel la ndax it dafa am lu jullit di bañal jullit tegu ko fenn dafa am lu jullit di bañal jullit te tegu ko fenn ba moo tax ñu ngi ciy waxtaan ak benn kilifa yàlla xam na ko maag Haj Moustapha Cissé bii nit ku yéeme la ma ni ko mën daal dama am gàtt gàtt mu ni ma gàtt bi lan la ma ni ko diggante Iraq ak Iran kañ lay jeex mu ni ma du jeex léegi ma ni ko lu tax mu ni dafa bokkagul ci xare yi yàllay intervenir ndax yàlla du intervenir lu dul xare boo xam ne dafa nekk bayna xaqin wa baatil bayna xaqin wa baatil mu ni ma wante xare bu nga xam ne bay na baatilin wa baatil la e mu ni ma yàlla du intervenir dafay bàyyi rek ñuy yàqante ba faw mu ni ma loolo tax ni ma du jeex léegi mu ni ma ndax tey réew yi sayal yooyu lee amuñu taw xiir te buñ ñu yalwaanee ñu dindi fukki milliards jox leen te léeg-léeg ñu jël nangami junniy milliards jënde ko ay fetal di ko rey jullit yi ci biir jàkk yi nit ñi mu ni ma loo bëgg yàlla def ko leneen lu dul bàyyi nu nuy reyante ba abadan ba abadan ndax li nga joxul sa mbokk mi fokk yàlla nattu la nga jënd ko gànnaay di ko xeexe ba faw waaw ngi ciy waxtaan waaye yu metti yu bare la yu metti yu bare yu kenn mënul wax moo taxoon buuru buuru Makka wax ma ci làmmiñam ni ma problème bi posé ci diggante arab yi ak Israël mu ni ma gànnaay bi ko saafara xam-xam rekk koy saafara waaw ci lu wér mu ni ma fekk ma dem fa ñu ni ma nag dañ ko opéré dafa feebar dañu opéré ko ba mu ngi soog a génn biig la biig jóge Genève moo tax docteur yi tere nañ ko mu gis nit lu ëpp fukki minute ba moo tax fukki minute rek nga koy mën a gis toog nanu keroog ñaari waxtu wala waaw ñaari waxtoo gën wàll mu ni ma problème la boo xam ne xam-xam rek a koy saafara moo tax soo demee waxal ma président Senghor ñu ko bu nu ci feeñ sax waaye na woote ci Dakar na ku bokk ci diine yahudiya na bokk woo ku bokk ci diine masihiya na woo ku bokk ci lislaam ay borom bu ko defee bu nu dajee bu ci politiciens yi génnee rek léegi yoon ni ma soo demee wax ko ma ni ko bind ko ma ni ko bind ko nag mu ni ma kon fa nga dal danaa la yónnee si leetal fa ma dal ñaari waxtu rek motaar yi ñëw indi leetar ba mu day na mu ni na ci jot léegi na mu gën gaawee moo woo Hadj Moustapha Cissé mii boobu mi ngi soog a dugg ci diplomatie ma ni ko affaire bu am solo la ma ni ko te man du ma dog sama soxla ndax loolu kaay jël ko yóbbu ko ca président Senghor nga wax ko naka la affaire bi demee ndax lu am solo la bari na lu gànnaay fajul xam-xam faj nañ ko waaw bari na lu gànnaay fajul xam-xam faj na ko te loolu buuru Makka wax benn góor yoon wax na ko waa Israël ba ñuy caakaayu ndax avion yeeg char yeeg missile yeeg mu ni leen baat bu mujj ba du yooyoo koy tudd baat bu mujj ba nit a koy tudd ah baat bu mujj gannaay bi ko tudd mukk baat bu mujj nit a koy tudd ah ah. lu gànnaay defarul nit mën na ko defar waaw ba moo tax e yonent bi day jaaxle woon na ci ba moo taxoon mu ni law takaasaftum ما تدافنتم لو تكاشفتم ما تدافنتم لو تكاشفتم ما yonent bi nee na bu yàlla mayoon kenn ku ne wuññi wuññi li ci dënnu mbokk nee na sët du am bu yàlla mayoon jullit bu ne wuññi li ci dënn mbokk nee na sët du am ndax kenn ku ne di nga sib sa mbokk ba du ko suuf law takashaftu ma tadaafantu ku ubbi woon sa dënn mbokk rek doo ko suuli mukk ndax da koy jëppi waaw da nga koy jëppi maa rek day taay waaye rek xikma xikma la ci biir xikma nag ngay jaar ba am la nga bëgg ndax walaw shaa rabbuka itam kenn mënu ca dara waaw walaw shaa rabbuka wallaay kenn mënu ca dara kenn mënalu ko dara la jaala naasa ummatan waxida wala yazaaluuna muxtalifin illa man rahima rabbuk wa lidalika xalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla anna jahannam min aljinnati wannaasi ajmain wuute nag ci àdduna la ñu ko fekk wuute waaye wuute ba ñaawal moo bon wuute ba ñaawal moo bon waaye fi leen ko fekk nag coobare yàlla la waaw coobare yàlla la ba moo tax daal ñu ngi laaj ndax dana man jàppandi li nu donne ci tubaab yi bañ nu yàqal li nu donne ci yonent ndax loolu mën na nekk nu fexe ba li nu donne ci tubaab yi bañ nu yàqal li nu donne ci yonent bi liggéey la de uh-huh. liggéey la de <coughs> ndax itam nga def ma ma fayu nga def ma ma fayu li Cheikh Al Hadj Mali waxoon ni attakaalu yu addi ila taaddudil kilaab waaw Cheikh Al Hadj Mali ne xajante rek xajante ku ne woon moroom moom moo xajee noo say-say ne dafa baril xaj yi rek waaw attakaalu kaay moo waroon a ne xaj bi yëpp la. waaw mbaw la piir waaw yow itam nga ni ko kaay ma wan la ne xaj piir la ëpp naa de wonante leen ak càng moo gën wonante leen ak càng ndaw sa yonent bi jëw na ko jëw na ko ndax ndaw sa dafa ŋàpp doom bu tuuti bi eh, ajal ko wëtal ko xale baa ngi sonn mu indi ko ci yonent bi ni ko waaw xale bu tuuti bi ma defal lépp léegi ndax am na aj mu ne ko comme ni ko ñëpp amee la ko am na lu mu ne na yoon bi wax ko uh-huh. nga def lu baax waaye yóbbaale ca koo am yóbbaale ca koo am moo gën de ba moo tax ndeysaan ca Ndar maam ay bokk yu daje ñëw ci Cheikh Al Hadj Malick radiallahu Jean-Jacques Servan Schreiber moo ko mujj waxaat waxu Maodo ba moo ko jëlaat def ko ci téereem bu ñu tudde le défi américain Maodo ko wax ca Ndar ñeenti fonctionnaire ñëw ni ko suñu solde yi de barkeelu ñaanal lu ci yàlla mu ni du yomb nag mu barkeel ndax gëm yàlla lalu ko waaw gëm yàlla lalu ko xamuloo ni fayu weer aada waaye du dëgg fayu weer góor gu ko nangu rek ci aada nga nekk waaye nag ci dëgg waaw fayu weer ku ko nangu rey nga sa bopp ndax dootoo gëm yàlla mukk salaire ba daan la def loolu lu lu nekk lu nekk moo tax aada la waaye du dëgg góor war na mën a jàpp ci luñ ko dul faye weer di ca faj soxla boppam nu mu ko neexee te kenn du ko yëg su amatul yitte boobu xanaa ñu di ko fay weer ñu di ko jonko bi yàq na yépp yàq na yépp dana wax lu mu warul la wax dox lu mu warul la la ko wax moo doo ko wax ca ndar tax Maodo ni leen ah du yomb nag ndax daal di fayu weer gëmati yàlla yombul de yombul de di fayu weer gëmati yàlla wallaay yombul wallaay yombul moo tax du barkeel ku gëmul yàlla loo jot du barkeel mukk moo tax tubaab boobu di français bu rëy bind na ci téere bu day ni ñey ni ku ne njaam jeex na rek waxuloo dëgg jàmm pire ne mooy fonctionnaire waaw waaw ah. moo tax Maodo ni du barkeel mukk moo leen ko wax ca Ndar tubaab yaa ngi koy soog bind bërki démb di ko nangu nag ni léegi jaam nekk dañu dafa nekk jaam bu moderne rek te mooy xëy dem ca bureau ba jaam la ndeysaan ak di séenu rek bëgg weeru yàlla wi dee xaat xaat waaw kenn xamul lan la moo tax ñoom ñëpp tubaab bi d'accord nañu nee nañ ñu rek li ngeen doon ne ci nun na am lu ngeen ci lànk ndax administration baaxul baaxul mukk te li nu ci tëral rek ngeen doon te nun suñu bos bi baaxul mukk dafay bloqué lépp lépp lay bloqué te boobu bu leen ko doon mukk maa ngi am ay xaritu tubaab bu ñu fi ñëwee rek danaa fexe ba ñu gis kilifa yépp wax leen dëgg wax leen dëgg pire wallaay ndeysaan dama dem tukki ñëw dem